waa tey dañoo ñëw pour appuyer Gallas Diop ci acte bi nga xam ne si mi ngi koy def moom it mu nekk en tant que membre ANDOBES yàlla dogal nag kuréel gi nga xam ne dañ koy jiite muy kuréel goo xam ne c'est national muy ANDOBES national ñu jiitoo section Touba muy mbir moo xam ne si lu am solo la ndax parce que association nationale de donneurs de sang tekkiwul lenn lu may jël sa deret maye ko te yàlla tax maye te yàlla tax nag. amoo ci xaaj amoo ci seen sarax nag bi ci gën wala maye bi ci gën wala joxe bi ci gën maye ko te ki nga koy may xamoo moom mooy kan maye deret nag il faut ñu am beneen méthode de sensibilisation boo xam danañ ko jël pour nit ñi xam lan mooy maye deret xam njariñ li xam acte xam dégâts yi xam li nga xam ne si buñ jëlee deret yóbbu ko ci hôpital yi famille jaar ba yegg si ba doomu aadama mën koo jël il faut nit ñi xam loolu moom mooy lan parce que mbuusu deret buñ ko jëloon tey jii nii bala ko nit a mën a consommer danañ ci fayal 53000 ci 53000 képp koo xam ne ñëwoon nañ ni la fayal 53000 da nga naan dafa xam leen di jox mooy leen lan ndax deret tey bu fekkoon ni yàlla dogal ne tubaab mën na koo defar kenn bu yàlla dogaloon tubaab mën na koo defar kenn du ko dem di ko may doomu aadama kon da ngay dem ci pharmacie wala nga dem ci boutique yi nga jënd ko mais direct c'est humain doomu aadama ak doomu aadama moo ko mën a may doo moroom doomu aadama suñu sang bu tedd ba nag Serigne Saliou Mbacké daf ci waxoon wax ju am solo dafa ni woon maye deret gii ngeen di def nii dafa mel ni mën ngeen koy defal taxte képp koo xam ne jël nga sa deret maye ko nit kooku mucc xam ne lépp loo xam ne sosootoo ci moom xamal ne yaa ko mbeeñ te waxi Serigne Saliou jooju dañuy toll fu ñu toll di ko dëggal en tant que ndawu dëkk bi en tant que citoyen dëkk bi parce que lii tey jii Galas def war na ku ne war na bépp doomu aadama boo xam ne yaa ngi ci dëkk bi parce que tey bu bu dee jël maye lu mat cent poches xamoo ñaata vie la mën a sauver te benn benn poche de sang mën na sauver ba trois personnes parce que léegi technologie bi jàll na ba léegi sang total dootuñu ko joxe dañuy joxe plasma joxe plaquette joxe sang total kon jàppal na yow benn poche de sang bi nga joxe maye faj na ñetti nit. ba jëm ñeenti nit parce que technologie moo jàll foofu parce que si siburu ñu ngi fi ñiy xëpp deret muy suñu soxna yi nga xam ne si chaque jour ñu ñëpp suñuy soxna suñuy yaay suñuy jabar suñu doom ña nga hôpital ba ñi nga xam ne dañuy def dialyse waxaale wu ma la chaque jour nga xam ne si yàlla dogal dañuy changer seen deret ñooñu war nañ leen a bàyyi xel te situation boobu ñu nekk ñoom ñun mën nañ faa féete sama benn xarit nag boo xam ne si dafa doon wax lu am solo mu ni may deret méttiwul de mais ngay ñaan deret moo mett kon loolu rek laa leen di. dañu am initiative depuis 2016 di def journée de sang di ko ànd ak ay autorité ak kilifa yu nekk ci département bi Madakaw nag dafa dem rencontré banque de sang hôpital Matlaboul Fawzaini en 2016 bi ñu demee ñu waxtaan ak ñoom ci jafe-jafe yi nam ñu xamal nañu ne buñ masaana dugg màggalu Touba dañu am problème mu deret ba dañuy dem di ko sàkku jee Dakar ak Kaolack fu nekk ngir renforcer seen banque de sang bi ñun nag kam ka dañoo nekk ay ndaw te yàlla def ñu créer benn mouvement di Madakaw mouvement ànd jàppale askan wi suñu objectif principal de développement social moo tax bi ñu ko waxee ci la Madakaw jaayante ak euh, banque de sang bi ne leen bu soobee suñ borom saa yu ñu duggatee ci weeru safar gi Madakaw dana engagé wu bu doonte ne cent personnes sensibiliser leen ñu jàppale leen ko seen banque de sang bi joxe ko addee deret loolu moo indi woon sabab bi maye nit ñi nañ xam ne suñ borom yéene rek lay fay ci doomu aadama bu Madakaw amoon objectif u 1000 personnes ñu dikk maye benn nit am na réussite totale parce que benn nit bi ñu fi jëlee bu ñu demee hôpital mu sauvé nit te lii ñuy def fayuñu ko ñun ñoo am suñu initiative def ko ngir jàppale ko suñu banque de sang di taxit ñu di ko def Cheikh Abdoulaye Mbacke mu baax ma dana woon ku ma defal lu ñëpp teg seen bët ma sant la bañ la dégg te lu baax ku koy def danga koy wane te ñun boo gisee ñuy woo tout le temps journaliste ñu nekk suñu partenaire ci événement yi dañuy bëgg suñu morom association yi ak parti politique yi man ci repéré wu par di ko def ndax banque de sang hôpital Matlaboul Fawzeyni bi sama frère Mbaye Diop mi fi jóge léegi wax na ko nga xam ne moom moo jiite euh, département bi ñi fi nekk di maye deret ñëpp nekk ci ànd bêche nit mënu ko jëlee ci keneen ku dul doomu aadama tey deret nit bu ko manqué kenn mënu ko may ku nit bu doon luñ mën a defar la kon amuñu problème boobu mais ku ne xam na ne Touba parce que département de Mbacké mooy deuxième ville Sénégal ci population benn banque de sang la boo xam ne banque de sang bi ñu yor daanaka day couvrir boo xoolee Linguère léegi-léegi day couvrir Louga di couvrir Kaolack di couvrir faneen yu bëree bëree bëri bu ñu demee nag ba banque de sang yi dem problème mu deret population bi ñoo war a jóg solol seen dàllu bopp xool ne maye deret dafa bokk sax ci ak jaamu yàlla mais dafa bokk ci wér yaram bu ko defee malaat yi nga xamante ne si ne dañu nekk ci hôpital yi tëdd d feebar ñu mën leen rawatina nag bis bi ñu jëm ci ndax màggal ku ne gis na ne accident yi léegi-léegi daf daan bëri yàlla nañu suñu borom suturaal nag ci barke borom bés bi ba ren jii màggal Touba 2022 am benn accident mais jigéen ñu wérul nit gis nañ te it ak ñi nga xamante ne si ne dañoo feebar ndax maladie léegi ni ñu bëree léegi boo manqué deret ne la kat amuñu deret li ñu mujj a a a a maye deret buñ ay bokkam ay bokkam danañ dikk maye deret léegi nag balaa suñu banque de sang bi di toll foofu ak ah population bi di jógal seen bopp xam ne devoir na ci nit ki fii ba ba ngay am âge de 65 ans chaque 3 mois bu dee góor man nga maye direct bu fekkee jigéen fii ba ba ngay am fii ba ba ngay am cinquante cinq boo xoolee chaque quatre mois man nga maye direct kon jàpp naa ne képp bépp citoyen bu mu a doon banque des sang bi la jege du Touba rek ci Sénégal gépp chaque trois mois bu fekkee góor nga war nga mën a dem maye ji direct chaque quatre mois bu dee jigéen nga dem maye ji direct parce que loolu population bi bu ko ñëpp doon def rek defe naa ne jafe-jafe direct dootut am. xam nit mënta defit ci màggalu Touba gi nit. ba ca bisu 18 safar ba lu gën a màgg yëkkati sa deret joxe ko tas suñu borom tax loolu jàpp nañ ne nit mën ta def ci safar gii lu ko gën a kawe tayit Madakaaw jaayante na depuis 2016 ba léegi chaque doole cent dana yëkkati 100 personnes joxe ko addee Serigne Touba deret parce nag jaamu yàlla ak wér waaye bala nga naan naam da nga fay nekk ndax nit bu wér benn activité du ko dox moo tax na Madaka ba ñu xamee loolu te xam ne ak wér moo jiitu ci lépp ci lañ nekkat ñun danañ fexe yëkkati suñu deret ji te jëmmi Serigne Touba mi borom tax ñu joxe ko addee suñ borom renforcer ko suñu banque de sang bi ba ña nga ne si ne ñooy gan yi war a ñoo màggal nga xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi képp ku ci am la faj ci jàmm nga dellu du tere Madaka ku ne gis na ko ci ndox mi man maay seul responsable politique bu njëkk a wax ci assainissement Touba la preuve ku ko bëgg a xam tàppeel Madaka dugg ci biir internet bi parce que fii ci gën a am solo di préfecture de Ndam 2016 laa fa taxawoon doon ko réclamé diggante kër Serigne Abdou Lahad ak kër Soxna May laa fa taxawoon doon ko réclamé te defe naa ne jit yooyu ma taxawoon yëpp doon réclamé ngir problème assainissement bi saafarawu na Madakaw ku ne xam na ne loxoom mës sa jóg ci population bi mais ku ne xam na ne loxoom mës sa jóg ci askanu département bi ci lu leen di jëriñ ci wàllu développement kon xanaa liñ ci dolli mooy di sant autorités yi nga xam ne ñëw nañ fi ndax sama frère Mafari Ndiaye mi ngi ni nekk responsable politique di coordinateur parti Rewmi fii ci département bi ñoom Moussa mbay ñëw nañ léegi sama xalifa sama lépp <laughs> Cheikh Loum mi ngi nii moom la fi Baye Cheikh Bara Gueye opérateur économique euh, yebal moom it mu nekk jeune bu jàmbaar nekk Darou Naïm di secrétaire général bu mairie bu Darou Naïm ñëw na fi sama yaay honorable Aïda Gaye ñëw na fi léegi euh, Cheikh Ndiaye mi ngi nii daanaka autorité yi daal ñu bari ñëw nañ ñu ñëwut yónnee nañ bis bi it li war a loolu mooy day bis boo xam ne ku nekk ci mën a teew ndax kat bis bi moom amul parti politique amul euh, société civile kuréel amul association amul groupement taalibey Serigne Bamba yi la képp koo xamante ne si rek ab jullit nga foo mën a nekk yaa ngi ci bis bi te ci nga